président doo nekk chef de parti da ngay démissionner. oui je pense que ni je prends cet engagement que ni dina organiser je prends cet engagement je prends cet engagement. waaye dès qu'on touche rek. ngeen hésité non non non hésité wu ma. ah hésité wu ma. je prends cet je prends cet engagement de ne plus être chef de. de ne plus être hmm. d'organiser le parti pour que parti bi am une vie en dehors du président de la République. c'est extrêmement important. mais en France ak yeneen i système démocratique président de la république jiitewuñu seeni parti ca parti yooyu am nañ doole ca continuer di am influence parce que am solo mooy président de la république am influence ci majorité am influence ci parti am c'est pas nécessairement dafay nekk président du parti c'est pas nécessaire hmm. parce que influence bu mu soxla mën na ko continuer di ko am dans le parti